kon mbokki Leewtoo TV nuyu nañ leen ziar leen tey nag ñu ngi Parcelles Assainies unité 24 ki ñu fi woo mooy Manga 2 roi des arènes li tax mu woote fi nag coronavirus bi oblige comme ni ko àddina di xamee ak ni muy doxee tey mu woo fi nit ñi parce que am na loo xam ne nii moom la bëgg a def mook association bi nga xam ne ñoom la àndal ci wàllum làmb di ay mag di ay kilifa jël ay maska fas ko yéenee nag dimbalee askan wi te defe naa ne faal dompat sax ci sot la bokk bu la neexee gis nga masque baa ngi nii lii mooy masque yi yaa ngi dégg gis naa la léegi kon defe naa noonu ngeen ko gisee ma téye ko ak ni ngeen ko gisee ci ni ko faal wane ci taabal bi loolu mooy masque yi muy loo xam ne nar na bëri trop trop parce que nag ah fi mu nekk nii daal wala fa ko wax bu jinne bëggee Dakar ku yéeg daanu te fi mu nekk nii fi mu nekk nii jinne ji jenn la mooy jinne ji bëgg a xeex coronavirus bi jëlee ko fi te yàlla nañ ci yàlla may ndam barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy acte boo xam ne bu la làmb rafet na trop faal kon nañ dem wan gaa yi li fi nar a am. loo xam ne képp ku nekk mbër képp ku nekk sportif lu muy def rek dugal na ci loxoom kon Birane lii les anciens lutteurs ñu ngi lay gërëm di la sant di la ñaanal yàlla ci sa taxawaay bi sa taxawaay bi rafet na ndax ful na fekk rek tu es disponible merci beaucoup. Manga 2 buñ ko gërëmee gërëm nañu les euh, anciens lutteurs les anciens gloires mais aussi dafa am ñu ma fi fekk. kenn ki di sama mag muy baabu keneen ki di sama rakk muy euh, Mbaye Diallo mais aussi euh, Ndiouga ja yéen ñëpp véritablement ñoo ngi leen di gërëm di remercier aussi euh, Mbaye Jacques yéen les journalistes nag jot na wax fa dëgganteek yàlla que travail bi ngeen doon def vulgariser ba làmb tey jii devenir li mu doon tey jii nag moom ngeen war a taxaw ba nga xamante ni bi ni ngeen daane mbër mu fi mas a nekk parce que mbër mu fi masa a doon roi des arènes bu daanoo yéen ko daaneel parce que yéen a naan ah waaja de daanu na donc yéen ko daaneel fexe leen ba nga xamante ni bi ci ñiy njëkk a daan corona euh, euh, Covid 19 bi na doon yéen ci naka mooy fexe leen ba nga xamante ni bii képp ku war a jóg tey jii ngeen gis ko ci mbedd mi jël leen ko ngeen wane ko parce que ci biir wane boobu ngeen koy wane moom bu gisee boppam ci télévision bi wala mu dégg fenn ne kat foto nan ko su boobaa wax fa dëgganteeg yàlla dootu ko defati loolu dafa am solo li tax mu am solo man gis naa ci kenn ku nga xamante ni ciy démb à travers une télévision dan ko wane waa ko ñoom ne ko gis nañ la mais ban la gisee ñëpp a takk masque yow takkuloo masque looloo ko jàpp ba nga xamante ni bii la mu doon liggéey après yamatul ci moom rek mais dafa dem ba nga xamante ni bii këram ci boppam ku takkatul masque sax moom mooy dal ci sa kaw donc nag ce que je voudrais que ngeen def ko yéen les journalistes surtout les journalistes sportifs u làmb fexe leen ba nga xamante ni bi ci ñuy gën a xeex coronavirus bi na ngeen ci bokk donc màng nii nga tàmbale yàlla moo lay fay yàlla na la fay at ñi nga àndal ñëpp yàlla nañu yàlla jàppale ba nga xamante ni bi lii dan naan démb la woon rek buñ ci jógee nag moom laay wax toujours ne li ci des nag ñu jéem a taxaw nag wax ci làmb dox ci làmb def ci làmb ba nga xamante ni bii fa mu toll woon dana fa yeggaat wala sax mu paase ko loolu daal moom laa ne woon ngeen baal ma. asalaamaaleykum euh, askanu làmb yëpp au nom du ministre de sports monsieur Matar Ba euh, maa ngi gërëm d'abord euh, di nuyu le chef de quartier bi ñu fekk fii muy El Hadji Birane bi nga xam ni ancien foot gardien de but la woon international de football di nuyu aussi Manga mi nga xam ni moom mooy. président de l'association des anciennes gloires te ku wax askanu làmb wax communauté ba tax na maa nga initiative bi mu jël c'est une très belle initiative dans la mesure où on a remarqué ces temps-ci il a eu de cas communautaires te tey écuries yi dañu am proximité avec les communautés am ci xelam bu rafet moom ak ñoom Basirou Babou ci seen ay xel yu rafet ñu ne dañuy offrir à toutes les écuries de lutte au moins des masques te xam nañ ne le port de masque est sortie par le ministre de l'Intérieur monsieur Ali Ngouille Ndiaye donc au nom du ministre des Sports monsieur Matar Ba maa ngi leen di delloo njëkkal di leen gërëm dégg naa nag euh, li ngeen ma yóbbante incha allah bu neexee yàlla ak yonti bu jógee conseil des ministres li may njëkk def mooy woo ko au moins wax ko seen doléance yi ngeen xam ni li ngeen wax maanaam soxla ngeen ay masques pour les écuries soxla ngeen ay jumtuwaay pour les pour la protection des écuries pour la protection en tout cas de toutes les composantes de la lutte comme que composantes de la lutte ñoom ñëpp ils ont contribué euh, pour au moins combattre le Covid 19. incha allah bu neexee yàlla ak yonte bi kilifa gi dinaa ko jottali seen yóbbante loolu laa doon am di leen gërëm di leen sant di nuy aussi suma confrères yi parce que man journaliste laa aussi parce que j'ai fait plus de vingt ans de pratique journalistique donc sama ay lépp lu ñuy def tey. lépp que ce soit dans la sensibilisation que ce soit dans la lutte que ce soit dans la dans la promotion que ce soit tout lépp les journalistes sont au début de tout processus lu baax tey ñoom la lu fi jekk tey ñoom la lu fi baax donc ñu ngi leen di gërëm di leen sant te xam ni vraiment amuñu seen taxawaay au non du ministre des aussi je vous remercie vraiment de en tout cas de la sensibilisation que vous êtes en train de mener pour combattre cette propagation d virus du coronavirus je vous